asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ngir assemblée nationale doxe ci ni mu waree te du am benn rëq-rëq goo xam ne dañ ko fay nemmeeku docteur El Hadj Oumar Diop nekk ab jàngalekat ca faculté des sciences juridiques et politiques ci université Cheikh Anta Diop de Dakar moom la mu gis moom mooy ne faw ñi nga xam ne nag tey jii de ñoom ñoo am majorité te nekk ci bopp réew mi am ci lu tollook juróom-ñett fukk ak ñetti député faw nag ñu war a mën a waxtaan ba juboo ak ñi nga xam ne de ñoom ñoo nekk ci l'opposition bi nga xam ne am na ci lu ak juróom-ñetti fukki député kii di docteur El Hadj Oumar moom moo nekkoon ganub émission bi di objection fii ci biir rajo Sud FM foofu la daal di xamle ne fu mu nekk nii ci wàllu configuration ba ñuy xaar fu la nga xam ne de moom mooy ci assemblée nationale faw nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi te it daal di bëri ay député fa li nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale daal di jéem a négocier ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir l'opposition bi ngir bañ rek blocage daal di am ci wàll gi ni mel jàngalekat bi di docteur El Hadj Oumar Diop yemul foofu ndaxte daal dinay ñëwaat ci tolluwaay réew mi ci wàllu démocratie ak tamit Macky Sall yan tànk jéego la ci def wala boog la mu ca xajamal moom la mu gis sax moom mooy ne Macky ñaari mbir a ngi nii daal ne mekku nañu ko ne ba mu nekkee ci boppu réew mi ba léegi ma ngi koy amal maanaam daal di jaay l'opposition bi ne moom moo leen gën a muus yemul foofu sax ma nga leen di xoxatal ak i xoxañal ngir fexe ba daal di leen neenal moom moomu nag di docteur El Hadj Oumar Diop daal di gis ne loolu moom day gën a delloo suñu démocratie ginnaaw nekk Macky Sall ñoom de dañoo xeex dañoo def seen kéemtalaay kattan ngir daal di ko fi dëggal wante la ñu nemmeeku ci kii nga xam ne de moom mooy Macky Sall moom mooy ne moom la ko yitteel moom mooy fexe ba l'opposition bi du am benn doole fii ci biir réew mi ci lu jublu ci wàllu assemblée nationale bi nga xam ne nag dinañu xam tey ji sax bés bi nga xam ne la ñu koy daal di taxawal autolekaay bi di Les Échos moo ñu xamal ne njiitu réew mi sax mi ngi doon daje ak député yu bàyyeekoo ca benn bokk yaakaar ci seen daje bi ñu doon amal samedi Macky daal dinay soññ ñii nga xam ne kon ñoom ñooy député yu yees yi ngir ñu def seen kéemtalaay kàttan ba liggéey ga ñuy xaat ci ñoom ñu daal di koy amal ci assemblée nationale dina am sax benn séminaire goo xam ne dañu leen di tàggat ci wàll gi ni mel Macky daal di xamle ne dinañu daal di tabb ki nga xam ne moom moo nar a nekk joriñ gu njëkk indi fi kon li nga xam ne moom mooy gouvernement bu yees loolu moom bu ñu paree ci wàllu assemblée nationale ak tamit ci wàllu élection de hauts conseils de collectivités territoriales bi di l'info moo ñuy xamal ne ci wàllu institution boobu moom nañu xam ne waa benn Bokk Yaakaar ñoom ñoo fa nar a fees dell la ko waral moom mooy ne bëri na ñi nekk ci l'opposition bi ñu daal di gantal ne ñoom duñu bokk ci wàllu élection yooyu ci fukk ak ñaari liste yi nga xam ne kon ñoom ñoo nar a jongante ci wàll gi ni mel fukk ak benn yi ñoom ñoo koy xëccoo ak waa benn Bokk Yaakaar suñu naataangoo yu culikay bii di l'info daal di gis kon ne waa marron beige ñoom ñoo fa fas yéene bëri lu fukki membre yi nga xam ne dañu leen di tab juróom-ñaar fukk ya moom njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom moo leen di tab foofu nga xam ne moom mooy ci bi di direct news la mu gis moom mooy ne dëkk yu nekk ca kaw ga ñoom ñoo tax nag ba Macky daal di gagné li nga xam ne moom mooy élection yi foofu su naatango yi di ñu xamal ne bennoo bu ñu xoolee ci département bu Mbour am na ci lu tolloog juróom-ñaar fukki junni yu tegal juróom-ñett fukk ak juróom boobu fekk na ne waa Yewwi daal di am ci lu tolloog juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay junni yu tegal ñaar téeméer ak fukk ak ñeenti xob ci wàllu élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu daal di dëgmal ci atum 2024 jullikaay bii di l'info nekk ci bopp réew mi ñoom jóguñu ci dund gu seer gi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel mën na am loolu moom du arrangé dara waaye ki nga xam ne de moom mooy njiitu réew mi jullikaay bii di l'évidence ñu njëgu dund yi ñuy faral di jëfandikoo dafa yokk bu baax a baax diwlin bi ak soble bi nga xam ne moom mooy moo yitteel sama mbokku njóobeen yi tamit yokku na bu baax a baax léegi sax ay tik-tik di dàllu plastique dafa sax yokku te lépp nag ñu ngi ko teg ci du geer ba nga xam ne moom moo am ci diggante Russie ak Ukraine wante culikaay bi di l'évidence la mu ca gis moom mooy ne ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi suñu jógulee ci li nga xam ne de moom mooy seeraayu dund gi de du baax ci ñoom ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu euh, dëgmal ki fi nekkoon njiitu réewum Sénégal di maître Abdoulaye Wade moom ba léegi la ko yitteel mooy fexe doomam bii di Karim Meïssa Wade dellu si waat fii ci biir Sénégal ci ni mu gën a gaawee li ni mel sax benn délégation boo xam ne dafa seeti woon xalif général des Mourides feddiliwaat nañ ko ko ba pare cuulikaay bii di tribune mi ngi ñee xamal ne maître Abdoulaye Wade moom ma ngay fàttali xalif bi protocole ba ñu waxtaanee woon keroog ba ñuy amal ubbite Masalikul Jinaan ndaxte Macky Sall moom moo ko ko digoon te ba léegi defu ci lenn ay yéexital amoon na ci koppar gi nga xam ne dañu ko waroon yónnee ñenn ñu nekk fii ci biir réew mi jànkonteel ak ay jafe-jafe aujolikaay bi di Le Soleil mu ngi ñuy xamal ne yéexital googu la ko indi moom mooy campagne ñu élection législative yi ñu euh, génn wante versement yi lañ war a jox dina tàmbaliwaat ci ay bés bii ñu nekk aujolikaay bi di Le Soleil du ñu xamal ne képp koo xam ne kon dañ la waroon a yónnee xaalis daal di koy jaarale ci wàllu cash transfert ci ay bës bi di nga ci jot ci ni mu waree ay jafe-jafe am na ca Expresso Sénégal aujolikaay bi di Libération moo ñuy xamal ne dafa mel ni direction générale bi dafa amatul waral moom mooy ne ñu bëri dàq nañu leen foofu nga xam ne daal moom mooy ca Expresso Sénégal waa UNSAS ñoo ngi koy naqarlu di joxoñ baaraamu tuuma ñu nekk ca bopp kërub liggéeykaay boobu kii nga xam ne it moom mooy Guy Marius Sagna nekk ku yees koo xam ne daal dinañu koy tabb député moom mu daal xam le ne mi ngi ci ginnaaw liggéeykat ya nekk ca Expresso tey jii sax ci toogaanu ñaxtu gi nga xam ne dañ koo fas yéene amal ci kanamu kërub liggéeykaay googu Guy Marius Sagna ma ngay xam le ne moom ku fa dëgg ne ko mas jeexale ko mbirum Adji Sarr ndaxte tey yëwculikaay bii di critique moom la daal di xëyee muy laajte ndax am na fi mu nekk nii benn magistrat bu pare ba pare am fit ne dina taxawal dossier gi ni mel la ko waral moom mooy ne ci dossier boobu dañ cey tudd koo xam ne ab kàngam la jiite l'opposition bi ba pare nekk candidat ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma rax ci dolli magistrat instructeur bi nga xam ne moom moo mujjee woon di liñatu dossier boobu dafa génn àddina ba fu mu nekk ni daal ñu bëri ña ngay laajte ndax affaire Adji Sarr boobu sax dinañu ko mës a yi li ngeen dafa si biir aujolikaay yii ñu leen di ñaanal njeextalu bés ak jàmm